ma ne ku nekk aussi nañ ko jox li nga xam ne yoon moo ko ko may xam nga dafa am loo xam ne dañuy secret professionnel parce que tey jii loi moo ni boo divulguer secret professionnel dañ lay woo tëj la dëgg la wala dëgg tey ji secret professionnel jàmbur boo ko génnee ah secret médical du moins dan lay woo tëj la benn nit ki même buy prêter serment di waat loolu lañ koy wax dafa naan man damay taxaw garde secret mais kooku nga bëgg ko woon ne ko léegi li xew ci malade bi jox ma ko pour lan mais c'est de l'abus de loolu mooy vérité et loolu dama ne la ñoom ñoo bugg a dugal nit ñi ci politique tout citoyen nag am na liberté ñun politique gu nag bokkuñu benn parti politique mais dama ni citoyen bu nekk am na sañ-sañ bokk parti bu ko neex comme nit ñi ay médecins nekkee APR am ñu nekk yeneen parti yi mais loolu dans l'exercice de la profession sa mbubu politique boobu da koy génne nga teg ko fële nga def sa liggéey